kañ te bàkk Seex Abdul Karim makaarimul axlaaxi Mbàkke yaa nu yem ma jéem a kañ te bàkk Seex Abdul Karim makaarimul axlaaxi Mbàkke yaa nu yem sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bare ay xame doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bare ay xame murit yaa ñaan ya ñañ fay dajaloo ñam yey jalaañoo day dagan tey tegaloo Cheikh ya ñañ fay day dagan tey tegaloo dongom ya mokku lool di leeral seen kanam bëkkun fataaju xam dongoom ya ma ku fataaju ñam du ko xam Cheikh Abdul Karim Serigne Abdul Karim cheikh abdul karim def leen nii ñu màggal borom makaarimal laxlaax doy loona cheikh bamba ba lool ngir barke ba doy loona bamba ba toog ca dëkk ba di am teraanga teddu lool ngir barke ba rafet ji ko waral mu doon kuy tërbiya ku kenn bëggul mu jël defar ca daara ya التوحيد أو الزيادة أو النقصان أو تعديل على غير ما أنزلته أو ريب أو سكن أو تعديل عند تلاوته taxawal lii ci taxawaay bu rafet am ci yaakaar lool am ci xel mu dal lool muy ay tuut pañ di ay doomi jullit nga jël leen di nab nabi ci ñoom di def ci ñoom alquran di def ci ñoom ak di def ci ñoom diine loolu loolu mooy liggéey sëñ Tuubaa ci bi te kon sëñ Tuubaa nekkoon day mel ni waaram doon nañ koy bàyyi bu baax a baax nee na mi ko di jaajëfal di leen soññi yéen dootul tànk yi di soññi wajur yi ndax yaa yàlla dina am lu ku nit ki dafa war a fexe ba mucc sawar ñu tëdd ak njabootam mu dem ci sa njaboot nag lii mooy njëkk lii moo war a jiit mooy def ci moom tuddee ko bu baax def moom alxuraan mu jàng xam diine kon soxna benn sëñ bi nee na ñu ngi bii di yokk wajur bi ñu moom it jàpp ci liggéey bi nga xam ne seen bopp doo mooy ko defal ndax njaboot bi njabootu islam la njaboot bi njabootu Sëriñ Tuubaa la te ku liggéey Sëriñ Tuubaa la suñu borom la nekk te mooy suñu borom jëm fenn mhm. kon nag xam ne daal li ñu defal yàlla loo xam ne lii la gën a gërëm ci tool ci ndigalul sëriñ bii lañ koy wax loolu moo ko digal di wax leen di soññee waat rek te xam ne nii waar la boo xam ne am fu ñu yem ab tàmbali rek la am nañ ko yenu yóbbu ko ca kaw ca kanam incha allah mi ngi koy mi ngi leen di ñaanal yàlla barke liggéey bi lépp. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. yaa ngi sigaar muy yéen ndaw ñi. Mhm. ñu leen di nuyu di sunu sëriñ Amadou Xabbaan ci Cheikh Mouhamadou Fadil mhm. di Seex Muhammadul Murtadaa Sëriñ Tuubaa magam dénk daara yi ak njàngum alxuraan bi moo di nuyu nii ñu sargal di leen sant di leen gërëm di leen bëggee yéen daara yi makaarimal axlaaq yéenay daara yi makaarimal axlaaq ji nga xam ne sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu tax yàlla yónni ma ngir yéen ngeen na ci biir daaray makaarimal axlaaq ñu leen di séentoo ëllëg ngeen yaatal makaarimal axlaaq ba ëpp na jëpp daj hmm. ndax mooy mission Seydina Mouhamad hmm. mooy mission Seyxul Xadim di mission Seydi Abdoul Karim mii hmm. di te mbokkam mu tedd mi sëñ Tuubaa dénk ko daara yi mu Cheikh Mamadou Cheikh Mamadou Xabaan léegi mooy dénk bi leen sëñ Tuubaa dénk yaa yu siraaru laa tashtaxilu an il huda wa bil ulum ishtaxilu ñaar rek jàng ak jub nee na ngeen sax dang takk ci jàng ak jub bu leen bëgg nulu yaar yi benn tànk bi jàng bi des jub muy ñaari tànk yi benn loxo bi jàng benn bi jub muy ne daal ngeen tënk ci biir ndigalu sëñ Tuubaa loo xam ne sotti ko ba faw moom leen si am moom dul xabaan dénk Hmm. moom leen sëriñ Abdou Karim Mbacké dénk ngeen jàpp yaar yooyu huda ak hmm. xam-xam ak jub jaamu yàlla àjjana loolu rek kon nu ngi ñëw ngir seere suñu yàlla fekkeloo hmm. ci taw fi xam nu ngi ciy sant yàlla lool ndax xam na lii mooy li gën a borom ci dëkk bi loolu mbirum si dogalu sëñ Tuubaa kon nag wane na rek jottali ko na ne daal mbir mi mbir mi jotaay bii sëñ Tuubaa gërëm na ko ndax fii fi ndindi ak tindóol yi lañ ko jotaayoo ca la taxoon sëñ Tuubaa sanc loolu ñaari muy ñaari dëkk yi ndindi tindóol lii boobu na taxoon sëñ Tuubaa kon loolu laa ngi wéy ba tey yàlla na gën a sax dàkk. amiin yaa rabbal aalamiin. te it sëñ Tuubaa noppi na ci lépp mat na ma waa Ndindi mooy waa fii waa Tindu moom daal mu ngi nii rek <laughs> waa Ndindi ngi nii waa Tindu ngi nii. du saxee Ndindi sax njundóor yi kon nga seere ko. seereel waa musulman buy tindoo di sëñ sëñ xabaan seereel waa ndir ndir di mu wane ne sëñ Tuubaa lu leen jëmbatoo sax na ñëpp daal euh, bi ñu sañ ci bi leen sëñ Tuubaa joxe ndigal dañu ñëw sëñ Moussa ànd ak sëñ Fallou ñu gor tindoo di gis nga de suñu am na ñu ànd ñoom ñaar dem gori tindoo di ànd naa tey sëñ Massamba gori daaru Karim noonu la gor yi toftaloo amiin